ñu leen lépp lu ngeen am jarote ni nangu ko boo si gis mu nekk ni tey jii ne rek baax ni daal maa ngi si ci yàlla dellu leen yàlla te wóolu ko gëm yàlla yomb na de waaye wóolu ko moo jafe gëm yàlla yomb na waaye wóolu ko moo jafe gëm yàlla moom yomb na lool waaye nag wóolu ko nag mu mun tee tënku nag loolu mooy li nga xam ne moom moo jafe mbokk yi maa ngi leen di si yàlla bur bi taaraka wa taala gëm leen yàlla te wóolu ko ngeen génn ci kanam kat yi ngeen bàyyi njabar kenn ngeen gëm yàlla kese yàlla moo leen mën a dimbale yàlla moo leen di feebaral yàlla moo leen di wéral ñu ngeen ñu takk amul benn njëriñ soo feebaree dem hôpital dañu teg tekki jigéen ñi am doom hôpital kay xam nañ ci dara su nekk ni tey boo dee wasin dañ koy dindi maanaam tey ji boo dee dem kaso dañ koy tekki boo waree dem màkk dañ koy tekki naka lay régler problème loo xam ne du fekkee problème du muy régler problème xanaa yéen amu leen xel xanaa jaam yàlla amuñu bopp nelu leen ci yàlla ne boo feebaree ñu dindi ko boo dem màkk ñu tekki ko boo dee ñu tekki ko boo dem kaso dañu koy dindi boo demee brigade dana bëri bëri ngeen gisee la seen mbay ma la fa nekk ci gàllaaj kenn xamul nu mu toll seen borom ñëpp la kaso bàyyi leen xel ci lu may wax ak yéen bàyyi leen xel ci su may wax ak yéen doomu aadama yi dégloo suñu alquran doomu aadama déglu ñu sax xadis bu wér lii dañu leen di nax rek amul benn njëriñ nañ ci bàyyi xel bu baax Ousmane jëlal pàngoor yi nga woon leen ko jele kuri jele kuri kuur wala ko. askari yi ñoom ñu tuur nañu askar boo jullee gàllaaj mu na mel sala ha ah Pangol ya ngi non ya ngi dem ci taatu sidem gi man di tuuru foofu ak taatu won gi ak taatu guy gi loolu moom benn benn benn la rek amul benn njëriñ jëndee yàlla te wóolu ko yàlla moo leen mën a dimbali jinne mënu leen a dimbali nit mënu leen dimbali gëm leen yàlla te ngeen wóolu ko gëm leen yàlla ngeen wóolu affaire njawar bii génn a affaire këram bii lii moom baaxul maanaam lu doy waar la yàlla nee na képp koo xam ne yéen a nga ci nga lànk féeteerlu boo dee safara nga jëm maa ngi day taale fii xaalis yi ne fii abadan loolu amul benn njëriñ gëm leen yàlla te wóorul ko yàlla rek moo leen mën a dimbali maanaam jinne mënu leen a dimbali nit mënu leen a dimbali yàlla moo a dimbali jafe-jafe yi bëri na lool doomu aadama yi tumuranke nañu amul benn njëriñ gëm leen yàlla a wër ngeen génn ci a luy xërëm ak jibar da a gëm a kese saa boo yeewoo suba waxal alhamdulilahi rabbil alamin léegi booy wàcc lal bi nga wax xootu billahi mina seytaan rajim nga jàng fatiha benn soo mokkale aay ci kursi nga jàng ko jàng xul à onze bi rabbil falaq ak rabbin naas maanaam loolu noonu boo ko defee malayka moo lay topp mais dina du la topp dañu gëm yàlla te wóolu ko dimbali ku leen yàlla ngeen génn ci xaram beeg jabar jabarkat yi dañ leen di nax rek di lekk seen xaalis bu dee bëccëg seen tax lu ñàkk solo loo xam ne amul benn njëriñ nag loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk. soo feebaree ñu dindi ko boo demee hôpital dañ koy dindi boo dee dañ koy dindi maanaam boo dem màkk ko amul benn njëriñ la ay bagages yu ñàkk njëriñ la ñu. daanaka kenn di dimbali koog yéen yéen ñëpp ci lépp lu xaramal njabar bàyyi leen ci xel bu baax a baax amul benn njëriñ. mbokk yi gëm leen yàlla te wóolu ko na ngeen dimbali ko yàlla doomu adama